Sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaar loo nee na suuf sépp sunu boroom a ko moom waaye am na fu mbay gën a nangoo xasida Tuhfatul Awaax ku ko jàng dana jéggal bàkkaaru juróom ñaar fukki junniy at ku koy diglu bindal nañ ko tuyaabay juróom ñaar fukki junniy at siiw na li tax ma di ko indiwaat ami wuute ci waxin yi waaye li ñuy xam moo di mën naa far bàkkaar rek su ko defee nu xam ni sunu borom itam bu lay faral bàkkaar moo xam na mu koy fare na nuy moytu bàkkaar te bu nu juumee ba def ko nuy jàng xaside gi ak xaside yépp ndax tuub dañu ko war a taqoo wa tuubu ila llahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun wallahu aalam